Nous sommes là aujourd'hui pour vous faire part de nos différents problèmes au sein de notre université, qui est l'Université virtuelle du Sénégal. Euh, je tenais à vous rappeler que depuis plus de trois mois, des milliers d'étudiants d'étudiants orientés à l'UVS courent derrière leurs outils de travail, à savoir leurs ordinateurs et leurs connets de connexion. Euh, et de connexion qui leur permettaient, qui de, de, de, faire normalement leur cours. Euh, je vous rappelle Sans ces outils de travail, l'étudiant est à moitié renvoyé de l'université. En effet, l'administration de l'UVS a refusé de fournir ses étudiants des outils de travail parce que ces derniers s'étaient euh, s'absentaient à des cours qui n'étaient pas obligatoires, des cours qui n'avaient aucun rapport avec leur filière, euh, dont les étudiants avaient, avec leur filière dont les étudiants avaient été orientés. Ainsi, que des changements de règlement dont la majeure partie des étudiants n'étaient pas au courant Euh, de ce fait, je tenais encore à vous rappeler qu'avant, qu'il suffisait tout simplement de faire les cours d'informatique et qui duraient trois mois et l'administration te fournit des outils de travail. Mais cette année-ci, euh, l'administration a changé ses règles. Selon moi, c'est pour soustraire les étudiants parce que les moyens ne sont pas là-bas. Euh, il a mis en place des cours de leadership et de développement personnel qui n'avaient aucun rapport avec nos filières. Pour ne pas, euh, de ce fait, nous, avons adressé à de, à de, nombreuses lettres, de nombreuses lettres au ministère de l'Enseignement supérieur, à son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, au Président Ousmane Sonko ainsi que Maître Abdoulaye Wade. Mais depuis lors, il n'y a que le directeur de campagne de Ousmane Sonko et le chargé de, euh, de mission de Madame Mimi Touré qui nous a reçus. En définitive, nous lançons un appel aux autorités compétentes euh, de trouver le plus rapidement possible des solutions à nos problèmes, car nous n'hésiterons pas de braver les mesures qui ont été mises en place par le ministre Aly Ngouille Ndiaye, car c'est notre avenir qui est en donc tey liy waraloon tey suñu teewaay mooy dañu ñëwoon fii ngir yëgal askan wi yëgal askanu Sénégal ñun li ñu nekk di dund parce que ñun ñooy ñi nga xamante ne ñoo amoon bac at yële passé mu nekkoon ci atum 2019 donc tey jii nii ba bañ amee bag léegi am na at ak weer ci juillet 2019 ci lañ am ba ñu amee bac ñu dem ba ci mois de novembre ñu orienté ñu ci école bi nga xamante moom mooy institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio ñu orienté ñu foofu noonu fekk ni école bi nakate yoo pareegul école bi chantier la woon amul woon dara lu fa taxaw te ba tey jii nii may wax ak yéen ba nii nii ba sànq amul dara loo xamante ne pare na pour ñu mën a dem foofu noonu jàngi école bi pareegul des na ay liggéey donc loolu na mu doon loo xam te lu ñuy ñaawlu la ndax ay nit mënuñoo jàng fukki at ak ñett am seen baccalauréat nga bëgg leen ñàkkloo benn at fekk ni dañoo tegoon seen programme donc loolu noonu doon lu ñuy ñaxtu te loolu nag bañ ko defee weer yi passé donc euh, début weeru juin ñoom ñu ne ñëw nañu dañuy def ay cours en ligne maanaam cours yoo xam ne da ngay toog seen kër di def cours yaa xam da nga am machine wala téléphone wala dara loo koy suivre léegi ñu ne da ngay def cours en te di fàttali ñun suñuy inscription ñoo ngi bindoo fukki junni ak juróom-ñett fukki junni ak juróom-ñett lañ bindoo ci ci ci ci ci ci euh, mois de décembre donc loolu noonu ñoom ñu xooluñ ci loolu ngir jox ñu lu ñuy suivre du tablette du ordinateur du téléphone ñu pare ñu ñuy forcer ay cours en ligne léegi dañoo bëgg a sauver bi ba pare sacrifier si ñu ay camarades suñu ay morom yi nga xamante ñoom ñëpp ñoo joxe seen quatre-vingt-dix mille cinq cent pour jàng. donc loolu moo doon loo xamante ne dañ koy ñaawlu bañ taxawee nag ñaawlu ko ñu doon laaj ngir gis leen ñu bañ bañ demee ba tey euh, ñu ñëw di ñu forcer ay cours en ligne donc ñu gis ne loolu vraiment lu ñaaw la tey jii ni suñu ay camarades yi nga xamante ne dañoo góorgóorlu ci bag bi ba am seen euh, bourse am ay bourse pédagogique suñu administration suñu directeur dem wax ak direction des bourses ñu bloqué bourse ñooñu noonu parce que tout simplement ñoom amuñu euh, lu ñu suivre cours en loolu ñu teg ko fan raison pour laquelle nag tey jii nii ñu ñëwoon fii di wax ak askan wi te di leen wax ni ñu wax ni askanu Sénégal ak askanu bitim réew que ñëpp nañ xam ni ñun ñii ni tey ñu bëgg a sacrifier duñ ko nangu. bu dee ñoom seeni ay doom dañoo nekk di jàngi extérieur ñun ñu nekk fii ñu ñu bëgg ñoo sacrifier dañ xam ne duñ ko nangu suñu mbéjum kanam nag borom moo ko fayu boppam te ñun lañu laal. te ñun incha allah dinañ def ay jéego yoo xamante ne ci nii mbaa ci naa dinañu tontu ci li ñu ci li ñu leen laaj jërë ngeen jëf. Oh. tey am na lu mbégte lool bokk ak jotaay bi suñu naataangoo yeneen yoo xam ne ñoo si biir front bi bokk na si ñi nga xam ne ñoo nekk si IVS bokk na itam ñi nga xam ñoo nekk ISEP de Diamniadio ñi nga xam ne itam ñooy les bacheliers non orientés ak ñeneen ak ñeneen tey lu tax ñu daje fi ñun particulièrement ñun ñoo xam ne ñoo nekk si privé bi. bokk na si BTS bu nga xam ni état du Sénégal bëgg nañu ko imposer le 28 septembre ñun ñu nga xam ne ñu noo nekk si privé bi am na suñu bare si ñun ñoo xam ni depuis mars ak léegi plus de cinq mois defuñu cours présentiel maanaam nekk si classe yi mais itam defuñu cours via aussi les euh, plateformes donc su fekkee ne dañu bëgg a lu nga xam ni moom mooy examen. BTS bi le 28 septembre comme nu nu ko nu nu ko euh, forcé woon si li nga xam ne mooy cours en ligne yi forcé nu ko loolu moo war a tey ñu forcé waat ñu nga xam ne te mooy BTS bi ñu jàpp ne loolu su fekkee dañu ko bëgg forcé waat loolu euh, autorités yi dañu pare rek pour sacrifier lu nga xam ni mooy vie plus de quarante mille étudiants yoo xam ne ñooy si privé bi te loolu ñun ñoo xam ne ñoo nekk si ñooy ay responsable te ay représentants yooyu loolu duñu ko nangu ba tax na lépp ñoo xam ne moom lañu réclamer mooy autorité yu nga xam ne ñoo jëlee décision boobu ñu delluwaat ginnaaw ci décision yooyu ba puusal nu li nga xam ne mooy date yooyu te fexe itam étudiants yu nga xam ne ñoo nekk ci privé bi delluwaat ci classe yi mu gën a gaawee ndax xamal na nu ni étudiants yu nga xam ne ñoo nekk ci privé bi bokk na ci ñu nga xam ne ñoo war a delluwaat si université yi le premier septembre nu jàppale loolu su amee manque de respect ak discriminatoire bi dafay gën di leer ndax lu nu xamal si certains chefs d'établissement mooy que ñoom mënuñu respecté lu nga xam ne mooy protocole sanitaire yi pour accueillir aat ñu nga xam ne mooy sunu naataangoo yooyu nga xam ne war nañu jàngee ci établissement privé yi. ñu jàpp loolu su ne am na Cheikh Oumar Anne mi nga xam ne moom mooy ministre de l'enseignement supérieur ak aussi ministre chargé de la formation professionnelle di Moussa Dame Diop ñoom dañu fay seen mission ñoom nit ñi ay nit ñoo xam ne dañu seen bopp duñu déglu mais itam amuñu benn souci si li nga xam mooy avenir u étudiants yooyu. ñu jàpp ñooñu donc bàyyi wu ñu xel benn yoon étudiants yooyu. non donc su fekkee nit da ngay jiite xamoo luy sens de responsabilité loolu moo waral ñoom bàyyiwul leen xel nanguwuñu itam waxtaan ak ñu nga xam ne mooy ñooñu. waxoon na fi daan def ay marches daan def itam lu nga xam ne moom mooy ay sitting mais par rapport ak négociation yu amoon ni ak ñu nu doon ñaañi looloo tax ba bu leen kenn wàccul mais nanu jàpp ne su fekkee ni su bëggaat ay Fallou seen ay basiiru fay nanu jàpp ne ñëpp pare nanu ngir jaay suñu bakkan ngir suñu ndax kenn du du nangu mukk ay nit ñoo xam ne dañuy taxaw. di jël seen ay décision yu leen neex di def lu leen neex sans même bàyyi xel ñu nga xam ne mooy avenir euh, étudiants yooyu ñooy nga xam ne si dëkk bi nañ dëkk fii nañu bokk amuñu benn diplôme bu dul baccalauréat bi nga xam ne Sénégal fii nañ ko amee donc nu jàpp ni dañu ñàkkal euh, yëg ñàkk yëg boobu noonu yàq yëg nag moo tax ñuy wax ni le président de la république nga xam ne moom la fi Sénégal yi teg te moom moo teg Cheikh Oumar Anne mu jëlee ko fii lu mu gën a gaawee su fi jëlewul nag nañu jàpp ne président de la république monsieur Macky Sall moomu lépp lu nga xam ne étudiants yi daan ko def moom na jàpp ne moom mooy responsable loolu lépp parce que ñun suñu avenir duñu nangu kenn koo xam ne dañu ko caxa caxadee wala di ko yàq te ñoo xam ne ñun daan fi nekk di seetaan loolu dès aujourd'hui nan jàpp ne su fekkee président de la république moom en personne moom nañuy waxanteel su fekkee lii nuy wax nii waxu si fii ay bis lépp lu ñu gis rek nañu jàpp ne ñoom la te ñoo ngi jël kat tenir pour euh, témoin opinion bi internationale comme nationale c'est li nga xam ne moom moo fas yéene xew.